jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay baax a baax tey nag maa ngi fi Colobane seet si ki nga xamante ni mooy moo Kang Kang su ma nee Mor Kang nag nekk mbëru askan wi mbëru bawol bawol yi waaye xale boo xamante ni nii mën naa ne dafa xew ci jamono ndax euh, bu ñuy signature neexal ko bu ñuy làmb tamit noonu lay def man sax dama naan sànq bi ma koy woo naa maa ngi naan ko Mor est boo ñëw làmb amuloo looy jëfandikoo avant ngaa yegg si ndax boo ñëwee xara gi ngay àndal ak ni ngay ni ngay ni ngay yëngalee man njootu naa daal loolu nekkul loo xamante ne lu naturel la parce que tamit dafa ëpp quoi yëngal beeg yooyu dafa ëpp nuyu naa la moo kankan fay naa la la di la jaajëfal bu baax. dinaa ma sant yàlla julli si yonent bi. Mm-hmm. di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke bu baax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax ko dama ko bëggal sama bopp mm-hmm. waaw. foofu nga yem. foofu rek laa yem. Hmm, doo nuyu booy fi taxaw. <laughs> ñii mafia bi la. ñii bu la nuyul sax garaawul. Hmm. ñii mafia bi la ñoom dund dund mafia luy dund. Hmm. man maa ngi man boo gisee samedi sax bu ma demul entraînement maa ngi fi di di football. ok waaw ñii moom sama tout tàng la ñu tamit ànd seeg euh, sama waay sama xarit sama lépp barke Sëñ Faalu sama bis daanaka dañ di jaral lu ne. kon maanaam ñii dama leen di wax yàlla na leen fi yàlla bàyyi ak jàmm rek. nuyu sama sama grand frère mi nga xamante ni maanaam ah, ñoo ngi yàq dërëm ci Sénégal te loolu ñu naqari la. balaa ngaa ñëw ci loolu. yaa ngi ci ñaata combat. maa ngi ci dix combat. ñaata victoire dix victoire. amaguloo défaite. non ah. te yàlla na yéex. Euh, ma gis la nga jëm ci komba sa diggante ak Alioune Seye bu ñu xool moo la jiitu ci làmb moo la xaw a raw ci làmb mais dafa mel ni dala may chance. waaw Alioune Seye may ma sens dama prouvé bu tollu fi may ma benn sens. Hmm. Alioune Seye góor yàlla la man góor yàlla laa. Hmm. dama rampe ba egg si moom. Hmm. ñu war a jëflante man ak moom. kon maanaam sama avance la lekk ma lekk avance am kon dañuy sëgg bëre. waaw par force la. waaw force la loolu force la ah yàbbul promoteur promoteur boo jox xaalisam. non kooku da nga ko bëreel. dara di nga ko mais ñu gis euh, dimanche tey la mardi ñu gis la dimanche ngeen ngeen ngeen amoon face to face yi ñaar ah, yaa ko jiitu ci stade bi ci li mu wax nee na ko jiitu ci stade bi bi mu ñëwee fa la fekk mais euh, doon nga yëngal mais biñ nee Alioune Seye wàccal moo kankang wàccal mais bi mu bi muy wàcc boobu ñoo ngi supporter yi di ko sotti ndox ñu di ko saaga ñu di ko sotti kafe mais mu wàcc yéen tamit ngeen waroon wax mais mayu leen ko jàmm seen diggante yéen ak moom. Alioune Seye kenn sotteewu ko dara Alioune Seye quatre personnes ma ànd ak quatre personnes. non mais nee na yéen yéen li ngeen li ngeen andi ci digg géew moo ëpp lool parce que yéen bawol bawol yi yéen a ëppoon keroog ci stade bi. waaw moom bu ko neexee mu ne bawol bawol ñu fëpp ñu fëpp bawol bawol yi fëpp ndax bisu bawol bawol kon bawol bawol yi fa moom loolu muy wax noon na ko bàyyi na ko bàyyi Alioune Seye barki Serigne Saliou laa liggéeyal Serigne Abdou Karim Mbacké mi ma yaakaar. Mhm. Alioune Seye taxawu ma moom saaga ko dama ko jox cër ndax rakam rakam ñoo bëgg mooy Fatma Dia. Mhm. kooku dama ko bëgg te yàlla tax. Mm-hmm. jàpp ko te yàlla tax. muy Fatma Dia dafa baax. Mm-hmm. kon Alioune Seye aw ma lu ma koy dépassé. Mm-hmm. te lamb sax am na dépassé. lamb lamb nga lekk avance su bu lu la koy wax. waaw loolu kay am na. waaw ñu ko gis. man daanaka bi Thiat Seck wooyee. bi mu wooyee noonu Mor. man sama deret chaque jour bu ma bon man bu ndënd mi yëngoo rek. barke Serigne Fall la génn sama deret day yëngoo. man yàlla yàlla moo def loolu si man. kon dama koy doolee sant yàlla bu baax. ndax man fi ñuy dégg ponkal yi man fi la ñu ma war a dégg kon am na loo xamante ni war ñu ma dégg si yenn ay caaxaan yoo xam ne ay ñàkk fayda la mhm. mosoo dégg ñu ne supporteru moor Kànk moo këf portable jàmbur amut mosoo dégg ñu ne moo moo def violence mais pourquoi pas bàyyiloo ko mu ñëw taxaw ngeen wax yéen ñaar bëggal amateur yi barke Seydina Mouhamad bu ma xamoon ne nii lay demee mhm. wallahi dama naan bu kenn wàcc waaye loo gis yàlla sunu borom mooy dogal mhm. léegi bëgguma ko woon xamal laa bëgg man ak moom ñu jàkkaarloo micro yu dar ñu ñu wax Alioune Seye dama ko jox cër te moom bu ma wax loo maanaam dégg. mais nag mais nag faw nga wax parce que nag boo xoolee Fallou njaay tamit loolu la ci bëgg làmb nag la xam nga làmb dafa baaxo coow li keroog bi mu amee dama ne da cee baax parce que làmb faw moom coow ñu mën a bàyyi xel. xam nga Fallou xam nga Fallou. sëy ak ak ak ba nit ñi bàyyi leen xam nga Fallou dama woo. Mhm. dama portable Alioune Seye nee a jël portable am. Mhm. ma ne ko barki ñi ma àndal Hmm. liggéey la ñu xam. Hmm. kenn kenn ku ne ñoo ngi kenn ku ne yaa ngi sa say taxi yi daw. Hmm. soxlawuñu namuñu xaalis. namuwuñu portable. su ma bëggoon portable léegi ma woo kenn léegi mu indil ma iPhone barke sëñ Saalihu. kon maanaam man namu ma dara. waaye man li ma bëgg a xamante ne man grand frère bi muy accusé loolu moom mu gën a naqari moom sëñ Babacar Si la yaakaar maa ko gën a bëgg sëñ sëñ sëñ Babacar Si fop murit laa waaye dama bëgg sëñ Babacar Si. barke Serigne Saalihu. kon maanaam moom bu bu bu ma jaxaseeg samay mbokk man samay mbokk maa ngi ñoom riiroowuñu lamb nag bu la neexee lamb lamb lañu wax waxuñu fi nekk fii ay liwaatoo jëmale ëllëg de lamb lañu wax. parce que parce que ci biir waxam sax maa ngi ko dégg mooy naan euh, ki nga xamante ni moo solal maillot Sénégal bi. Mhm. moment bi ngeen di dox. Mhm. jékki-jékki na sant na loxoom dawala na ko ci biir kiwam moment bi fi muy def téléphone bi fii fa la génnee téléphone mais bi muy moment bi muy génn coow li bay ci la sant ne moment boobu la kooku jël téléphone am. te moom téléphone bi sax intéressé ko mais numéro yi ci numéro yi ci nekk ak données yi nekk ci téléphone ak ñi nga xamante war nañ ko jàppale xëy na peut-être bëgg ngeen ko déstabiliser moo tax ngeen jël téléphone am pour bëgg ñi nga xam jàppale du leen mën a woo wala du mën a déggante ak ñoom loolu ko gën a intéressé mais du bi ci boppam. waaw loolu du wax man maanaam góor yàlla guy daw. Hmm. yor téléphone am ci biir. Hmm. nit nan la ko mën a wane ginnaaw jël téléphone am te yëgu ko. muy bàyyi ba dem këram naa dina sàcc sama téléphone loolu du wax. Alioune Seye li ma la bëgg a xam ne man ak yow ñoo am combat amoo kenn combat man ak yow ñoo am combat kon bul taxal kenn. mais nee na li ngay def nii bokkul ak lamb ja. la teewul teewul li mu la bëgg a def bésub làmb ja lii du teewul. nee naa la nee naa la ba ilaa yow mi diini fu daje man ak moom jàmm du am. man ak moom ñoo ko seq. ba li nga wax sequ ko keneen man ak moom ñoo ko seq. Mbaa amul réagir man amul réagir man xanaa mbete combat bi jàll. bu jàllee ñu seq jàmm waaye lekk naa xaalisam mu lekk sama xaalis kon na ñëw ñu bëre ngor gi nga xamante ne ngor gi nga xamante ni moom la ko Fallou Ndiaye euh, am euh, jox. Mm-hmm. na ko ko fay ñun xamuñu yàq bawol bawol xamul sàcc. Mm-hmm. barke Serigne Fall bu boo waxee ñu yàq deri jàmbur yi ñun nit nit ñëppay liggéey kenn ku ni boo xëyee da nga xool loo defi kon maanaam na bay loolu wax. non nee na nag yow da tooñ parce que tooñ baaxul ndax nee na moom taalibi sëñ Babacar la taalibi sëñ Babacar kenn du ko tooñ ba pare nee na wàlliwu sax kenn du ko tooñ ba pare di gudd fan. moo tax moo tax dégg naa waaw dégg naa si interview bi. mu ne ñun ko tooñ. moo tax euh, Balla Dia euh, gis ko. waaw Balla Dia taxul de. Hmm. Balla Dia man mi policier yi jàpp te xamul li ma def moo tax muy xataraayoo. maanaam dafaa dem. seefu policier yi ne ko eh ñu ne kii deful dara bàyyi leen jàmbur mu dem. mu mhm. ñëwaat man maanaam man luy neexal làmb laay wër man sama deret ci làmb la sama papa da doon kon maanaam man damaa juddu rek don ko. Mhm. kon maanaam mu nekkuma fii di caaxaantu bu dee ay caaxaan moo tax mu jël làmb ji non non man caaxaantu wu ma ko de làmb ji dama la si bëgg a xamante ni man sama yoon kenn du ma ko yàqal sama alal nduuti kenn du ma ko yàqal barke Seydina Muhammad mais moo nag moo nag kaay bu ñu waxtaanee bu ñu waxtaanee Alioune Seye ak ña nga daan am du benn Alioune Seye ak dab daan du benn Alioune keneen keneen du benn. waaw dégg mais mais est-ce que est-ce jël Alioune tamit war na mën a andi coow li nii lépp. jël Alioune Seye waaw dégg dégg li ma la wax. moo ngi door a am. Hmm. jël Alioune hmm. man sama làmb moo ngi door am sax coow nii. Alioune ñu ñun coowoo ñoo moom. te commencé gu leen. gu ñu nag commencé guñu waaye dama la bëgg a xam lépp loo xamante ni làmb war na ko man ma koy def man dama koy def mu mat. Alioune Seye man ak moom mooy man ak moom ñooy bëre. Hmm. ñii bëriwuñu ñoom Balla ñi ay ñii bëriwuñu xam nga ñu laal seen loo. Hmm. ñu xëpp ma biteel ma dongale sama ngem ñëw na leen eh si biti ma jëf leen teg waa ji def ko li ma koy def dem ñibbi moom laa am waaw. Balla Dia la tudd. Balla Dia waaw Balla Dia moom la moom la Alioune Seye doon wax naan. Euh, moom moo jël téléphone am ci poosam. Balla nuyu naa la. waaw siyaar nañ Baye Fall bi. yaa soloon yaa soloon maye bu vert bi wala du waaw maa soloon maye Sénégal bi waaw bu vert waaw Sadio Mané bi. waaw waaw. mais dama ko dégg ci biir waxam. nee na yow yaa dugal sa loxo ci biir poosam. récupéré téléphone bi te dafa soxla téléphone bi te nee na bu toogee démb la di tey mardi ba mercredi su jotul téléphone bu ngeen ko ko andilul day def li ko yoon may dina dem déposer plainte am. jox benn secret moom. Aliou Seye dafa tiit. yaa ngi Alioune Seye sant ma sant ja yaa ngi dégg samay maam dëkk Tiwaawoon mu yaakaar Tiwaawoon ma ëppale ko Tiwaawoon ndax sama maam si la sant li ko dale Tiwaawoon Mbooro Bidiw Kër Galo Pir Ngaay Bogal Ndar Pëlga man maa ko moom te Alioune Seye fa la yaakaar loo tax mu tiit comme que lekk na avance bi du maag moom moog moor la ñoom ñaar ñoo nekk si biir géew bi Alioune barke sëñ Fallou soxlawu ma alal man Baye Fall laa Baye Fallu sëñ Fallou ma Abdou di sama maam sama maam sant si Alioune Seye dama ne la kaay bëre ko bi moo gën quoi yaa ak Mor maag yow da nga tiir rek. kon kon kon su ma déggee li ngay waxee nii maanaam téléphone Alioune Seye yow jëluloo ko. non téléphone Alioune Seye jëluma ko barki sëñ Fallou Karim. billahi wallahi azim Alioune Seye amul image bu ñu la mën a wan boo xam jege naa ko man du ma jegee mbër du ma jege adversaire u moor ndax sequma ko moom xam la laa seq mooy ñi ànd ak Alioune Seye du ma bëgg ñu laal moor waaye Alioune Seye ba léegi sequma ak moom dara Alioune Seye boo koy xam yàgg na nee la dafa tiit ndax fa mu yaakaar xam naa fa la may gis wala fa la may dégg moo tax xam naa muy wax ay waxu téléphone Alioune dama bëgg mu xam ne li ko dalee Tewaan ba Mbooro ba piir Kër Galo Bidiw ngaay boggal man maa moom bu dee mu naan ay samay maaraak ñi may jàppale nax na boppam nee ko day xaar te incha allah rabbi booy bi na ko daan jël bu rëy si barke sëñ Fall lu leer laa la wax. kon daal loolu nga mën a teg ci loxo Alioune Seye noo ko juloo téléphone am tey jëloo folo téléphone am suba te fa mu yaakaar daal foofu la ko mën a jaar moo tax mu mu mu jaaree ko ci téléphone. déggoo lu laa la wax ne al dafa tiir loolu mu jaaree ko barki naa Mohamed gën nga mbindeef yaakaaruma leen sama àdduna lu dul sëñ Fallou Mbacke barki sëñ Fallou Mbacke jëlu ma téléphone am jomm naa loolu Alioune Seye xalpulaar nga may xalpulaar ne daka bandum yaa ngi dégg dama ne la nga dal fa nga yaakaar da ma faa gis wala da ma faa dégg loolu du làmb ji yaa ngi moor la yooyu yëpp après mooy loolu demal nga entraîné indi doole boobu indi doole ngeen bëre barki sëñ Fallou Mbacke da koy duma daan ko lu leer laa la. gis ngeen mbokk yi demee euh, ki nga xamante ne moom Alioune Seye doon wax gis nga moom tamit euh, li naan weddi sa sa der la mais nag dafa am lu ma dégg Alioune Alioune Seye nee na fi mu toll nii euh, duggagul sax ci combat bi waajagul xaw ma nag yow wax yooyu naka nga ko déggee nee na pareegul sax dugg ci combat bi. man man man pare naa bu yàgg man foo ma fekk damay pare. foo mu fekk si lépp damay pare si wàllam entraînement si wàllam euh, physique si wàllam contact si wàllam mara lépp dama si pare ndax man damaa jekkoo pare. kon maanaam boo jekkee yàlla am yàlla ànd ak yow taal sa bidiw da nga koy sant yàlla sunu borom man damay sant yàlla sunu borom ak sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a nga xamante ni samay mbokk xamewu ma leen jël kon maanaam lii dama naqari. dama naqari ba si kanamu yàlla. bu jël nañu yàlla xam na. bu dee jël nañu yàlla xam na. waaw waaye dama la bëgg a xam ne Alioune Seye loolu mu wax noonu na ko teg ci suuf ñun ay wàllam tribunal ak ay yooyu ñun yooyu noonu doxuñu si. ñun yooyu doxuñu si. man ñaanuma yàlla nit tey Alioune Seye bu jëlee sama téléphone. barki seexul xaddim daal gerte du ma wax. Mm-hmm. ñoo koy ndax lamb yëfi waga la. Mm-hmm. lamb maanaam ba nga ñëw ñu ruube mm-hmm. lan lay bañ ruube Aliou Seye xanaa mbapatut. moom li ma li ma dégg muy wax xanaa moom mbapatut daaw dem si mbapat yi yenn saa yi nga demoon mbapat war a jël final bi ñu ruube la. génne la 37. mais nag mais nag xam nga Aliou Seye dëgg-dëgg. Aliou man wallahi xasim naa la giñal ñetti combat am rek laa seetaan man combat yi ma yëpp du ma sax liir mbër mi. man kenn laay wax muy Thiaw Star. combat bi ñëwee wax ndax baax na mu ne ma mbër mi baax na. Hmm. soo ko mënut daan doo mbër. ma dem takk samay dal dem daasi lu ma yàlla may ma jël. mais di nga bëree nag waaw dinaa bëree man xanaa xamoon ne bëree gu ma man damaa bëgg mbër mi nga xamante ne ni maanaam da ñëw jël si ma. Euh, waaw xam nga damay dégg ñu ne moor. Hmm. maanaam jël si waate rek la mën. Hmm. ku ko jël si mën naa ñàkk. man Alioune Seye damay taxaw sax xaar ko mu ñëw jël si ma. ma bëreeg moom jàpp ko daan ko. man néew ma fi négocier. ba pare nag am na am am na lu mu waxoon sax ma ko parce que nee na. Euh, ñoo ngeen signature arène nationale mu dalal leen waxtaan ak yéen te boobu ñetti personnes. Pikine la du arène nationale. waaw barke Serigne Fallou laa la gis mhm. moom ñetti personnes la àndal. Mhm. ma ànd ak ñetti personnes. Mhm. dogg naa ko Serigne Sall ñi mu àndal ay mbocc lanu ñi mu àndal laa ñu xoolal ñii ñi kee kóob ay mag la nag waaye ñi mu àndal ñee kóob Fatma Dia moo tax mënu ma wax. ndax Fatma Dia dama ko jox ci moom Fatma moom da koy génne voilà Fatma loolu amul problème waaye non non damay wax rek Fatma moo tax mënu ma ruube mënu ma wax waaw Fatma moom da nga ko ciy génne Fatma moo tax mënu ma wax mënu ma ruube ñu génn mu moor liggéeyal mu wax la lool ma ne ko ma ne ko Aliou ma ma ne ko dama lay yenu mu ngaa yenu ak sa ba man luur may man cent vingt kilos fu ma ko fekk yenu te matul 120 kilos moom. moom la matul 120 kilos. voilà kon xam nga ne kon mooy loolu. mais noonu la mais nag du ñëw taxaw ak na jonn. de waaw du ñëw taxaw de jonn man li ma bëgg a def man dama koy def forcé man sama ngëm-ngëm laay waxee. Mhm. waaye dama la bëgg a xamante ni tey nii. tonnerre maa ngi koy masawu baax sama mag la sama lépp la. Mhm. nga xamante ni yàlla daanaka bu doon fay xol rek. Mhm. kon dina ko fay xolam. waaye nag dogal ak pexeem. yàlla mooy maye mooy xàññe. dégg naa nag. moom muy wax naa moo tojtal tonnerre. barki mm. Serigne Saliou laa la gindal ak dee sa bàmmeel tonnerre. Mm. bis boobu noonu. bu den may maye ndam barke Seexul Xadim laa la gindal moom laa koy may. Mm. tonnerre ndaam fu jaar sama mag la sama lépp la. tonnerre yàlla yaayam sama papa mooy nijaayam. kon maanaam kooku bu dee damay dem di ko soxore man yàlla naa tourné barke Seydina Muhammad wax boobu noonu na bay bawal bawal man bawal bawal laa am ak waa Colobane mhm. cité port na ko randuma mhm. man awma keneen man ñii ma sonal ñii ñii te yàlla baax na lu ma amul rek dama koo defut mhm. waaye si kàttanu yàlla combat bii bëgg naa waa Colobane gépp jàpp si waa bawal gépp jàpp si ñu gënal may bolok ba pare nee na combat bi moo lay recevoir te arène nationale ngeen. ñu nekkoo Ibamaar barke Seexul Xadim laa la gis. Ibamaar ngeen moom yéen bawol bawol yi. boo ñëwee. waaye te nee na moom fi la dëkk yow da ngaa pa yow de déglu rek déglu nee na yow da ngaa paas ñëw. te moom fi la dëkk bàyyam fa la am titre fonce yow da ngaa paas ñëw loolu nga bàyyi ko xel. waaw waaw mujjën mujjëntalu <laughs> mujjëntalu mujjëntalu sama combat ma ak boo yëmbal. Mhm. xoolal ñi dëkk banlieue bi. Mhm. ndax ku fëpp mbooloo. waaw loolu moom ñaari kaar sax mënu ko topp loolu muy wax noonu day sonal boppam Alioune Seye na na bëgg jàmm ndax jàmm lépp ñun suñu réew jàmm jàmm. jàmm waaw na fu mu xëyul du fa gont. Alioune Seye na bëgg jàmm <laughs> Alioune Seye mën na ma ëpp mbooloo. ah waaw nee la jour boobu noonu man. maa fay ëpp mbooloo. Mhm. maa fay def mu lu neex lu ko maa koy def. Mhm. ci kattanu yàlla waaye dama bëgg xam ne Alioune. portable. bu la neexee nga bind peleen léegi léegi léegi léegi nga indi ko Mor Kanka ndax Mor Kang nga ko war a andi andi ko andi kenn ko du Mor Kang waaye dama xamal ne loolu nga wax noonu teg ko suuf. te wëri leneen. Alioune Seye di nga bëre de dinaa la bëre loolu ba nga xoxot wóor na yàlla laa la jugeel ñun ñun ñun tàppat ñun tàppatuñu loolu. waaw man tàppatuma loolu. kon maanaam loolu muy wax noonu na ko teg ci suuf. lan ngay lan ngay lan ngay wax ñi nga xamante li nga xamante ni mooy ñu lay jàppale. ak say supporters waaw ñoo ngi ñoo waaj. ku ci mel ni Amath Dieng sunu maire bu Touba moo ngi def tum woowu noonu loo xamante ni mooy loolu ku ci mel ni Daouda Tine moom tamit amit Dieng daanaka moom la yàlla tudd ni mooy toog. waaw mu koy doolee sant yàlla bu baax Amath Dieng maa ngi koy woo ci bi mu jàppale doomam Daouda Tine Laye Tine meneen amet mi maa ngi koy woo si combat bi di woo waaj ñaari jëfin paal yi di woo Rimao gi nga xamante ni fa laa juddoo fa laa màggee yaroo di woo Touba Toul Refan bàyyi ma rep ba Kaba Bambey bàyyi ma Touba ba altu ndangal ma Zowal waa Zowal maa ngi di woo ci combat maa ngi lay woo ci bi di la wax ne combat bi fi mu nekk demagul fenn waaye coow yi dafa bari te dama bëgg nga tëjal ma gé euh, euh, gémmañu Alioune Seye dama bëgg nga tëjal ma ko waa Jilaas maa ngi di gërëm waa Colobane ñi nga xamante ni mbuucaa mbuuci maa ngi leen di gërëm ak ak maire Colobane yi maa ngi leen di gërëm maire yi aw seen fay ndax chaque jour bu combat ñëwee dañuy sonn mm. di gërëm yaayi seex di gërëm sama sama ñaari seex yi ak seen bàjjan maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm Tam Magat mm. di gërëm Tonnerre 2 maa ngi koy gërëm di ko wax na làmb noonu la di gërëm nag Balla Dia kooku moom suma gërëmu ko gërëmul sax Star soq waa mafia waa mafia pompier maa leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax waaw waa mafia euh, pompier bi maa leen di gërëm di gërëm sama géwél Racine maa ngi koy gërëm di gërëm no no bu baax ak Aliou Seye nga xamante ne nii ak sama doom day Baye Massamba maa ngi koy gërëm ak moo ak Dan Kebe ak Lay Bebe ñoom ñëpp dama dama bëgg ñu ma ay bloc ma feesal stade bi daan daan bi ñibbi si kàttanu yàlla waa buntu Pikine. Mhm. aw ma seen fay maa ngi gis li ñuy def waa Castor. waa Parcelles ñun ñëpp maa ngi gis. waa Soupon Talla Bouraaco maa ngi koy gërëm bu baax. kooku bi ma amul moom la. ak ma Zandama mafia boobu caw sa xiir njool ñoom ñëpp. pindi ma nga xamante ni moo nga maa ngi koy woo laay Pris. mooy loolu lan ngay lan nga naa waajal say supporter ci wàllum tuus nga xam ne ni euh, moo kànkang euh, day day tuus lu neex. andi ambiance lan nga nga leen waaw sama doom day ak trompeur kooku mënu ma ko fàtte mm. sunu ñaari papa yeenu naan mm. kooku mënu ma ko fàtte waaw ambiance bu neex moom moor maanaam dafa dégg mm. moor du répété moor dafa dégg kon maanaam moom deretu géwél mooy daw si yaramam waaw bañu ko deretu géwél mooy daw sama yaram waaw di sant nag sama père père Mbaye moo ngi may feccal sant maam Cheikh Ndiaye démb nga xamante ne nii dama jóge si làmb ji démb la yóbbu débiteur la ma fa quinze mille yàpp ma dale ci ba gàtt. 15 mille yàpp a waaye man nii gis nii maanaam fi bi ma la naa dama jàpp boobu damaa xiif sax boobu lekk laa doon wër maanaam ñun war di lekk di sant nag sama sama coach su mag si. maa ngi koy sant bu baax moom gis naa ni ma jàppee comme doomam la ma def moom coach su mag maa ngi lay wax ne la yokkal entraînement yi man loo ma sasoo doyut maanaam da nga ma war a rey di sant sama coach su Bada day sonn si kooku su ma amee wallaahi mu xam ne am na am na doom ju mat doom barke sëñ Fallou sant Baye Balla bu baax waaw di sant daal monto entier nga xamante ni ñëpp ku di ku si bawal bawal rek maa ngi lay sant si bis bii nii nga dooleel ma si kàttanu yàlla waaw maa ngi sant bu baax baax a baax baax ok waa séeréer nan ma santal nan ma ñaanal bu baax a baax jàpp si combat bi ok wasalaam. gis ngeen mbokk yi tey noonu la demee woon ma si ki nga Kang Kang combat bi nga xam te moom lay waaj bu dox ci diggante ma Alioune Seye Junior ñu ñoom ñaar moom laa seet su waxtaan moom ci combat préparation bi ak li nga xam te jot naa xew dimanche face to face bi nga ñaar di leen jox dig maa ngi nuyuwaat bu baax a baax ki nga xam te mooy compagnie maa ngi koy nuyu bu baax a baax moo ngi fii ci Colobane yëfu boutique di jaay ay yére maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp ñi nga xam te fekk naa fi tey di leen jox dig daje beneen yoon Adama kontaan naa ci yow jaajëf ba beneen